mbokk yi benn waxtu mooy door a jot asalaamaaleykum ñu nuy leen fas yéene leen a jot jottali tamit xabaar yi bokk na ci li nga xam ne moom lañ fas yéene faram-fàccandi lépp loo xam ne yiiteel na fi ñu toll ni coronavirus bi laajte wu yaatoo yaati dañ ciy ñëw ak itam xaya xew-xewu diine yi ak yu demee noonu le gannaaw ba nga xamee ne am na sax xabaar boo xam ne bi daañu ko tënk léegi rot ne xalif général des mourides Serigne Mountakha Mbacké wax na ne lépp lu mën a doon loo xam ne ab dajaloo la euh, bu mu ci mën a doon daal taxawal nañ ko ba jëmmi jamono Arabie Saoudite waa Mbàkka wax nañ kilifay Sénégal daal ñu aj aj Màkka gi moom ba yeneen i jamono daal lépp loo xam ne jëm na ci lu jëm euh, ñu Sénégal yu jóge fii euh, dem Màkka ak yooyu ñu taxawalandi ko daal ba jëmmi jamono aj gi kon ca lay daal di bokk ndax itam fi ñu toll nii Sénégal mooy dëkk bi nga xam ne ci réew Afrique yi féete soowu jant ñoo ci ëppale ab lim bu coronavirus bi daal fi ñu toll nii daañ ci tostal incha allah yeneen i xabaar Maodo Faye jërë ngeen jëf bokk yi ci ànd gi ngeen ànd ak noonu tawat ji nga xam ne moom la ñu duppee coronavirus fii nu toll nii mi ngi am lu muy jur nag gannaaw ba nga xamee ne Sénégal am na ci luy tolloog fukk ñoo xam ne ñii ab lim la boo xam ne bopp jooju alawtiku na leen Arabie Saoudite maanaam Makka ci boppam daal wax nañu ne ñoom kilifa yi nga xam ne ñi leen toogal fii ci biir Sénégal nee ñu euh, daal wax nañu lépp loo xam ne li jëm na ci pèlerinage bi mu jëm ak Makka geeg wàccaay geeg demee noonu ren ji moom wax nañ kilifa Sénégal daal nañ ko dakkal maanaam maanaam bu ñu ñëw bu ñu bu ñu bu ñu tàbbi ci loolu Euh, Macky Sall sax wax na loolu mel noonu démb daal na gis na mais bataaxalu euh, kilifa yi nga xamee ne euh, ñoom ñoo di ci yooyu Arabie Saoudite maanaam yu yu makkatal mukarrama maanaam daal kon ñu ñoom laaj nañu Sénégal daal na leen aj màkka gi moom nañ ko daal di taxawal ren jii ñi ngi xaar nag xëy na ci ngoon gi mu ay waa kër jëwriñ ji ñu dénk wàllu bitim réew ñu indi ci ay kàddu yooyu mooy gën a leeral mbir yi Euh, ci loolu ba tey ak coronavirus bii gannaaw ba nga xamee ne am na kenn kook euh, ca Touba la ko dalee ba ak njabootam loru ci ba ñu metti leen en quarantaine maanaam daal ber leen euh, xalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké ne ñu wax na ni daal ci xabaar yi nu jot ne lépp lu mu mën a doon loo xam ne li ay dajaloo la boo xam ne bi nit a fay nit a koy fekk am dajaloo mbooloo di fa nekk moom loolu jajax nañ ko dàqandikoo ba jëmmi jamono loolu mooy xabaar boobu nga xam ni kon jóge na ci xalif général de mourides ba léegi eh, tamit eh, ci li nga xamee ne dafa jëm ci wàllu xew-xewu diine yi fii nu toll nii ak jamono yi nga xam ni wopp ji day gën law di gën a dem ci coronavirus bi eh, ba laal ki ñii naan dañ leen war a dandal ba jëmmi jamono coow li na ko foofee ay sëtu géey ba mu mel ni nag fii ci Sénégal yëkkati fay débat buy wax ndax dañoo war a dàkk ndaje diine yi am déet nit ñi bëgguñu si wax koo si micro mu daal di rek ut ab lay bi. dina wax mm. dox nag daal di dajal kii di ab taalibe Mouride moom nag di ñu xamal li muy xalaat ci loolu. li si Mouride li si mal placé pour wax yenn yi. si d' waaw mm. ah, parce que feebar bi moo nekk feebar boo xam dafa garaaw tellement que day lore donc lépp luy lore nag moom xam bakkan moom moo gën a for lépp comme màkk si si yonent yàlla moo Muhammad nekk ñoom ñoo ne seen i kii dañ koy reporté cinquante mois ñun Mouride yeeg wala yeneen. fête religieuse. aajuwul rek ci manifestation religieuse wala ay gàmmoo kii maag aajuwul ci lu mooy maanaam fépp foo xamante ni mbooloo dana fay bëri souvent fa lay jaaree pour jaar pour pour jóge ci euh, waa ji pour jóge ci nit kii dem ci nit kële cela veut dire nit kooku bu ñu fexee ba mu mën a toog jombut moom bu ko yoree dootu ko mën a jox keneen. noonu mën nañ ko éviter parce que lépp loo xamante ni mën na nekk euh, mën nañu andil ay loraange mën nañ ko éviter. waaye dafa mel ni xalaat yi bokkuñu ndax kii nekk moom tamit ab taalibe murid moom di ñu xamal ne ci ndigal lay dox. taalibe lañ mënuñu lu déglu ndigalu sëñ bi sëñ bi su nee def leen dañuy def mais su nee bàyyi leen dañuy bàyyi. moom incha allah li ma fas yéene bëgg na maa dem Kazu Rajab bu fekkee ne sëñ bi. ndigal li mu joxe mooy pour ñu ñëw maanaam ci màggalu kastu Rajab bi incha allahu rabbi man dama fas yéene pour dem. bon parce ragaluma ko. ñu dàkk am déet lii di ndaje di nay na andi fi coow lu bëri fii ci Sénégal waaye kii di ab taalibe murit duñu xamal rek ne ne kilifa yi ñoo war a jël rek décision bi gën ngir mën a rek sàmm askan wi. parce que xam nga moom wax la yeeloo soo defee mu wax boo deful mu wax donc kon nañ def li nga xam ne moo arrangé population bi ak askan bi rek. ay ndaje diine yu bëri nag ñu koy xaar fii ci Sénégal ñu boole kook contexte boo xamante ne feebar bu bon boobee di coronavirus mi ngi rek law ci dëkk mi Sénégal yu bëri nag dal see tiit ñenn ñi sax di xalaat wala di sampalaat ngir xam ndax dañoo war a dàq am déet yooyu ndaje diine. dañ ko war a dàq am nit ak lu ci mën a am donte ba léegi fukki nit yoo xam ni wopp ji dal na leen fii ci biir Sénégal askan wi ñoom ba lekk am na ci ñoo xam ni dañuy nuyoo di joxe loxo Marie Rosalie Ndiaye. mun ñu ko bàyyi. su dee joxe loxo tàmm naa ko. ñu bëri dégguñu ñu wàññi joxante loxo bi ci askan wi. la kon mun ñu ko bàyyi. di ñaan suñu borom musul si ndax tamit set taxul nu ma ci. bien sûr dinaa ma ko gànt parce dama naan joxe loxo bi mënul tax ma kii ko. feebar bi mënuma dal. ñoom ñooñee nag dañoo jàpp ne joxe loxo mënul tax ñu jot ci feebar bi di coronavirus te yàlla rek moo leen mën a aar. non mënuma la daal nag. parce que ma nu ma koy moo la gëmloo ne mënu la lu bëri sax. je crois en en plus. lu may lekk lu may lekk parce que ma màggee mm, je prépare ce que je mange. c'est ça. fas yéene maanaam wax xeeru suñu borom rek. waaw ñaan gi rek daal man man ma jot ndax. sa bu doon tax mujj bëri ñoo xam dal leneen te gënuñu leen set. waaye du tee dal leneen. mais nag boo jëlee si rek yokk suñu borom rek mën na see musal lu bëree bëri. kile nag di ab mécanicien ñu fekk ko ca bërëb ba muy liggéeyee moom nee na fa mu ne du fa wàcc dootul joxe loxo fekk feebar bi mu ngi law ci àdduna. ah musul suma bopp rek di sant sant yàlla rek xam nga lu si yàlla yàlla lu mun a teg rek munoo koo daw moom. te xoolal jàngkat yu mag yi yëpp docteur yu mag yi yëpp ñu nga ca ca tubaab ya te foofu la feebar ba jógee du noonu léegi ñun fii nga xam ne dañoo néew doole feebar bi jàpp foo jëm musulu rek di raxas say loxo ba mu set di bañ a ba feebar ba dem rek. naam fii ci Sénégal wàññi nañu fukki nit yoo xam ne feebar bi dal na leen terewul ñu bëri ci askan wi ñu ngi woy di joxante loxo bañ a topp li ñu leen digtal am na sax ci ñoom ñu gëm ne joxe loxo mënul tax ñu jot ci bile feebar ba tax nee ñu duñu ko bàyyi. àddina bi yëpp wërngal kàpp réew mu ci nekk yaa ngi jël ay matuwaay. ngir dawale sa njaboot loolu ci tawat jooju la Sénégal fii nu toll nii moom ci Afrique de l'Ouest gi moo ci gën a bari la ay nit yu yu yu mu daal fukk la ñu wax euh, am na ñaareelu cas boo xam ne bi ci République démocratique du Congo am na ñaar Gabon ak Ghana yi tamit wax nañu ne daal am nañ fa euh, ñu ay nit yoo xam ne yi wopp jooju di coronavirus dal na leen ba ci Tunisie tamit euh, daal foofoo tam rek dal na leen ci yeneen yu nekk nit ñi ñu ngi xool nag nuñ ci aaroo Euh, ndax daal itam mbir yi doy na waar lool ndax ca euh, fële nga xam ne moo di Vatican ca Rome euh, foofu tam wax nañu ne daal tëj nañ ko ngir kenn bañ faa def ay ñaan yu demee noonu la itam fii ki nga xam ne PDG bii nga xam ne moom moo di Maduro tamit wax nañ ne daal tam moom daf na ñëpp jatu rek itam roppalaan yi nga xam ne sax ñoo doon naaw di jógee ci gox yooyu yëpp itam dañ leen ba Brésil daal foofu yëpp dañ leen daal di taxawal. ay ak Espagne ak yeneen i réew itam Amérique moom tëj na ay frontière am na réewi tugal yi bu fa kenn tàbbeeti léegi ndax wopp jooju daal nga xam ne moo di coronavirus xam nga Canada tamit seen premier ministre bi sax moom wopp jooju da ko alawti ko ba fi ñu toll moom tamit dañ ko daal di <laughs> ber ah, teg ko fële ci coronavirus le mu nekk nag ay mbir yoo xam ne yi ba léegi daal Euh, dafa <clears throat> doy waar loolu wopp ji yokk gu muy yokk noonu le ñu we ni ci xabaar yi ba léegi euh, ISRA ñoom dañoo nekk ci ay jafe-jafe ndax ñoom béréb la boo xam ne bi ñooy xool ak saytu lépp loo xam ne aju ne ci wàllu mbay euh, tolof tolof yi nag mel na ne xaw na tar aju mi sax ñu ngi doon naqarlu rek itam daal li aju ci seen fay payoor yeek ak yeneen i mbir yu aju ci ñoom Saliou Niang secrétaire général syndicat boobu waxtaan ci xadiseen ISRA day service bu am solo ci développement réew ñëpp xam nañ loolu ISRA mu ngi ci san ci région yëpp wante li ñuy am ay résultats yëpp ay résultats yu baax teewul ñoom di jànkonte ak ay jafe-jafe bi njëkk ci jafe-jafe yi mooy weer wu dee dinañ toog le huit le neuf comme par exemple weer wi mun ñu fay bi weer wi dee ba am fukki fan ñaar le douze démb la ñuy doog a fay salaire yi loolu nag dafa mun ta wéy ndaxte xam nga ni salaire dafa am importance na ñoo xam dañoo nekk ci ay dañoo loué am na ñoo xam ne seen doom yi dañ leen a war a fay scoraté ñëpp xam nañ daal salaire bu fekkente ni dafa tardé kat bi dootu am jàmm dootu mën a sax liggéey te loolu nag dafa yàgg te dafa bëgg a continuer noonu donc dañoo bëggoon loolu takk bu loolu wéyee gis nañ ni bu ñuy fay salaire yi li ñuy wax euh, charge sociale yi nga xam ne moom la ñu war a fay caisse de sécurité wala ñi nga xam ne moom la ñu war a fay IPRES wala FNR dinañ ko dagg liggéeykat yi wante duñ ko versé fi ñu ko war a versé léegi liggéeykat bi bu demee retraite day am problème gis nañ ni aussi pàcc parce que ISRA amul li ñuy wax IPM liggéeykat yi ñoo jëndal seen bopp ordonnance te xam nga ni ordonnance moom buy ñëw du tàggoo te nit ñi bu ñu leen bu ñu amee ordonnance mën naa fekk ci anam yoo xamante ni duñ am luñ ko jëndee loolu problème la problème bu rëy la euh, donc euh, leneen li aussi mooy dañoo am lu ñuy wax ndàmpaay pour pour jàppale nit ñi ci payum luwaas wala payum kër léegi euh, loolu nag ñi nga xamante ni ñoom ñoom la salaire gën a bari mooy ñi nga xam ne moom la ñuy wooye chercheur ak cadre yi ñoo ko am mais liggéeykat yu ndaw yi amuñu indemnité de logement dañu bëggoon nag indemnité de logement ñëpp am ko bëggoon nañ aussi bu ñuy tànnati njiit ISRA ñu càmbar ko seet ñu bëri ñi nga xamante ni mën nañ ko nekk léegi xam ni moo ci raw ñu jël ko te bëggoon nañ ki nga xamante ni mooy jiite ISRA tey ji moom jël na rek rek ñu indil koo xam ne ni ndaw la koo xamante ni nii dina mën a indi saafara ci jafe-jafe yi ñu jànkonteel loolu daal mooy li nga xamante ni moo ëpp solo ci problème yi problème yi bari na wante dañu woon problème yi gën a mag daal il faut ñu yëkkati ko pour que euh, président de la République mën nañ indi saafara. li aju ci wàllu G7 ñoom ba léegi ca euh, garab bi topp nañ ko bu baax a baax ca lycée Blaise Diagne professeurs yi ñoom wax nañu ne daal daal ñoom rek boo defu naag sax dañuy boycotté lépp loo xam ne aju na ci wàllu contrôle examen yi euh, contrôle yi maanaam composition yeeg yu demee noonu le ak jogante gone yi euh, mbir mi nag doy waar lool Fatoumata Diallo syndicat jàngalekat bi ñu di PG7 seen mot d'ordre bu ñu amal dañ ko nag topp fii ci lycée Blaise Diagne ci bi 10 ci suba jotee kuuru école bi nag fees dell ak élèves ñi dem ak di dikk ci jamono jii nag ñu ngi si seen juróomeelu plan d'action ca noonee sax la yooyee jàngalekat ne duñ ci yem. depuis 2018 am na yeneen stratégie yu bees yi ñu xaw dugal si suñu stratégie de lutte yi mais donte ne benn fan la sax ñu grève ko mun na porter préjudice à plus forte raison nag ñu dem ba nekk cinquième plan d'action. jamono jii nag pexe bi ñu laal moo di boycotter li nga xam ne moo di contrôle de niveau yi ak tamit te notes yu élèves yi. boycottu évaluation yi te gis nañ ne commencé na xëy na joxe parce que li ñuy wax évaluation standardisée am waroon semaine yi ñëw mais reporté nañ leen te boycottu évaluation yi moo tax ñu reporté leen donc stratégie yooyu xëy na mën nga ne efficace mais ñun gis nañ ne effectivement efficace nañ. ca lycée Kennedy nag benn jàngalekat bëggut a àddu ci sunu waaye nag bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi ñu am am na yenn nag ci ay professeurs yi nga xam ne nag ñii dañoo topp mot d'ordre bi ña ca des topp ñu ko ndongo yi di ñaax professeurs yi ngir ñu dakkal grève yi lee ñu arrêté def grève yi ndax te affaire bi dafay tax ñoom ñu ngi bëgg ñuy jàng te yeeg grève yi tamit du ñu mën jàng comme ni ñu ko bëggee il faut ñuy continuer di def seen cours yi au moins mais grève yi ñu koy commencer di ko régulier parce que chaque fois dañuy ñëw wala def dara ñu ñëw di lâché ñu naan ñu ay grève dafa am et ci ñaari ay bés yu ñu génn kuréel gii nga xam ne moom la ñu di G7 amaloon nañu ay débrayage waaye ba fi ñu toll nii amaguñu li ñu bëgg. liggéey yi nga xam ne dañ ko def ci yenn quartier yi tax na rek ci forage yi ci Nord Foire ak yeneen daal euh, ñoom sax léegi waat bay boo sax ñu noyyi waat ndax xëy na léegi yëpp daal di mën a baaxal ay entretien la yoo xam ne daal taxoon na Euh, mbir yi nag forage yi daa dañeen tàmbaliwaat tey sax ci ngoon gi gannaaw ba nga xamee ne am na liggéey yu amaloon euh, ci juróomi fan yi loolu nag directeur régional bi jëm ci wàllu maintenance moom moo jëm wax loolu le ci o ndax Sen'Eau jamono yu toll fu mel ne Parcelles Assainies unité ak yu demee noonu tam foofu gis nañ ne euh, ndox mi war a dikk dikkul waaye ay liggéey la rek yu ñu doon def nee ñu tam Souleymane Camara jokkoo ci ak Mame Diarra Da Silva. waaw ñu ngi ñu ngi avancé a lool lañu loolu lañu décidé woon à l'initial xam nga régénération la régénération mooy dañuy dundalaat forage maintenant bu ñu waxtaanee suñu partenaires yi nga xam ne ñooy def liggéey bi benn entreprise chinoise la donc ñoom dañu accepter liggéey vingt quatre heures sur vingt quatre donc cinq jours lañ waroon def mais finalement trois jours finalement sax lañ koy def parce que normalement tey ci ngoon ci guddi gi dinañ terminer travaux yi donc ñu ngi def une partie des essais actuellement forage bi Nord Foire commencé soulager population yi nga xam ne ñoom ñoo nekk côté surtout euh, Parcelles Assainies yi nga xam ne moom la forage bi di impacté plus quoi mooy unité douze ay unité dix sept unité quatorze ay unité vingt six donc ñooñu essentiellement quoi waaye phase yu bëri la ci première phase bi mooy phase bu njëkk bi six forage la ñu dem six forage am na ci ñeent yi nga xam ne biir Dakar la nekk am na ci ñaar yi nga xam ne ci zone cour bi la forage yi nekk Dakar malheureusement bu ñu leen taxawalee comme li xew Nord Foire mooy mooy am parce que forage ay forage district cest à day day dem directement ci population yi du dem di jaar ci réservoir di jaar ci day dem directement alimenter ay population c'est normal buñ ko ñoo ñu li ñu doon am ci ndox ñu ko amati ah mais li ma la wax mooy dootuñu amati lu toll noonu mais duñ leen bàyyi parce leen di réalimenter par le réseau te ñu jaarale feneen ndox mais c'est normal li doon ñëw ci quantité dina wàññeeku li doon ñëw tamit ci pression li nga xam ne mooy doole ndox bi day wàññeeku ba ñi nga xam ne ñoo nekk ci ci gën a kawe ñooñu seen ndox day xaw a day xaw a waay wàññeeku dinañ am ndox mais liñ ko doon am sant day gën a wàññeeku donc euh, donc donc véritablement loolu loolu mooy affaire bi quoi mais quatre lañu la ñu prévoir et dans le temps sur le euh, sur une durée à peu près de après une semaine de forage euh, après les deux autres c'est ñi nekk Pout moom on va être moins impacté parce que ñoom dañuy dañ dinañ am ay dispositifs de compensation yi ñu mettre en place ba nga xam ne nit ñi duñ ko duñ ko ñi nga xam ne ay mbootaay lañ yoo xam ne ki ay ñoom dañu nekk ay handicapé euh, waaye nag ñu bëgg a taxaw rek bokk ci réew mi itam ci lépp loo xam ne ak na ci ak setal euh, ñoom it setuk réew mi yitteel leen lool ba ñoom it ñu di ko yor seen ay jumtukaay ngir loolu Josette Kaly seeni békki fauteuil roulant wala seen laago terew leen ñu tiye ay bale peel ak it ay brouette noonee doon nii le waay laago di wone seen ànd ci seetal seen gox ci noonee ñu fas yéene wone ni citoyenneté bàyyul kenn Mataw Dia président bu association wu handicapé pour l'action et le développement yu commune bu Fass Gueule Tapée Colobane dañu wax ni nous sommes des citoyens à part kon lépp loo xam ne dafa concerné réew mi rek ñun daf ñuy concerné bu ñu ba mën a laaj suñuy droit dañu war def suñu tax ñu ne tey nag nañ def benn journée set setal bale wane ñu ni ay citoyen la ñu ndax ñun kët Dakar ville propre daf ñu concerné comme ni mu concerné toute personne. ci jamono joo xamante ni coronavirus baa ngi wéy di gën a law te it ak seen dundinu laago loolu tax ñu jël ponkub set bi ngir gën a xel nit ñi rawatina jaarale ko ci set setal bi. dafa am feebar xam dugg na ci dëkk bi mooy Covid 19 donc ñun il ñu béy suwaal te set ñun la war a gën a yiteel ndax ñun koo xam ni day wàcc rek ay loxoom ci suuf di raam di dem kooku vraiment bu setee mel ni man damay soox mën naa dëgg benn xeer rek glissé ànd ak moom wala xottu mbuus kon nag set ñun la war a njëkk yiteel balaa moo yiteel kii que ce soit si réew mi donte ci commune bu Fass lañ ko tàmbalee mu nekk seen commune témoin bi set setal fas nañ koo yéene yaatal ci yeneeni bërëb ñeenti weer wu jot programme nañ am fekk quatre ans yi di ñëw chaque quatre mois ñu dem si benn commune bale ko ba mu set xëy suba nag yendu waxtaan ak yi sensibiliser a xam mouvement moo bëgg ginnaaw bésub set setal bi yee population yi ci doxalin ñu jëm ci wàllum set ak it naka la ñu mën a def ci tirage u déchets solides yi Elage Malick ñu dem ci wàllu tàggat yaram. jërëjëf moom lañ ko doon rek coronavirus bi ci wàllu football championnat anglais ak bu France yëpp nag dakkal nañ ko UEFA wax ne kat dafay dàq ligue européenne des champions wax ci war a am semaine prochaine. dañ ci ànd ak Odile mun coronavirus bi jaxase na lépp ci wàllum tàggat yaram ci àdduna bi gannaaw série A ca Italie ñi nga xamante ne ñoom ñoo ngànk football bi ca Angleterre tey jël nañu dogal daal di dakkal lépp loo xamante ne compétition la ba ñetti fan ci weeru avril bii ñu dëgmal. lu ni mel moom la ñu nemmeeku ca fédération française bu football ñoom ci ab communiqué bi nga xamante ne fësal nañ ko tey jii ci suba nee nañu lépp loo xamante ne yëngu-yëngu la ci wàllum tàggat yaram dakkal nañ ko. UEFA moom nee na dàq na jongante yi nga xamante ne moom la ñu waroon a amal semaine bii ñu dëgmal ci wàllum ligue de champion naka noonu yi ñu war a amal ci Europa League bi fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mars bi nee nañu sax tirage au sort quart de finale ñaari compétition yii ñu waroon ko amal ñaar fukki fan ci weer bi ñu nekk moom it dàq nañ ko. ba léegi UEFA du ñu xamal ni mardi bi ñu dëgmal dina amal ab ndaje. ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo ŋànk juróom fukk juróomi fédération yi bokk ci moom ngir ñu daal di waxtaan ci dogal bi nga xamante ne moom la ñuy jël gannaaw coronavirus bi nga xamante ne lëmbe na àdduna bi ci noonee sax nee nañu mën nañu soppi calendrier bi indiwaat beneen bu bees jëm ci lii di C1 ak c naka noonu lii di euro 2020 bi mën nañ ko dàq diiru benn at Odile Minkilaan ñu wax ci wàllu taekwondo ak tamit stage bi door tey ji toll ci rek cent participants jóge ci nag ci fukki dëkk ci Ndakaaru tey ji la door stage bi nañ ko def ngir tàggat entraîneur ñu gën a xarañ ci wàllu taekwondo buñ ci noppee nag dinañ gën a am ay matuwaay waaye tamit gën a xarañ ci li ñuy def leeral ak président fédération sénégalaise bu taekwondo di Balla Dieye ñu déglu ko mën ci ay leeral objectif stage bi ni euh, fédération sénégalaise taekwondo ko daf ko defoo pour former ay coachum euh, ci niveau parce que maintenant fédération mondiale dafa exiger que coach yëpp pour que ñu mën a coacher au niveau mondial il faut nga am diplôme bi muy niveau un am na niveau deux mais balaa nga koy def il faut nga jàll ci euh, niveau un donc looloo tax en fait ñu def euh, formation bii nii euh, formation la boo dañ ko doon xaar ñun ci fédération sénégalaise de pour que suñu coach yi tamit mën a am yenn jumtukaay yoo xamante ni dina leen permettre gën mën a former xale yi gën leen tàggat te toujours en perspective mat fukki pays ak ñaar ñëw nañ fii Sénégal indi seen ay coach pour pouvoir euh, ñu mën leen euh, former ak la fédération mondiale pour mën a am diplôme yi pour mën ko tamit utiliser seen dëkk looloo tax tamit ñu profito maximum de coach sénégalais yi fi nekk ñu mën a ñëw ñu former leen looloo tax ñu indi fii nii euh, formation bi fii au Sénégal démarré nañ ko ci tey te am nañu mat cent coach yoo xamante déjà commencé nañ ci formation bi fédération mondiale envoyé nañu ay expert mondial ku mel ni monsieur Daniel Kharoski mu jógee et puis lépp li nga xamante ni dafay lié ci wax antidopage ak doping le docteur Malick Diop moom moo koy def fii ci formation bi mun nañ ne formation la boo xamante ni su fi ko siy jógee rek dinañ am jumtukaay yëpp pour mën a tàggat seen xale yi xamante ni mooy xew ci niveau euh, boobu nag dina door tey war a jeex suba incha allahu rabi dëkk ci bokk nag Sénégal la Tchad Madagascar Burkina Faso Côte d'Ivoire Canada Togo ak France ñu wax ci wàllu ak U18 góor ñi war dem ci Burkina Faso challenge trophy zonal bi U17 jigéen ñi war a dem ci wàllu mondial bi jigéen ñi tamit war bokk ci tournoi qualificatif Jeux olympiques yi di weer woo xam ne kat weer wu sarti la doon ci wàllu handball bi moo tax sax ñu jël ci ay matuwaay yëpp ministre bi nag daje na ak euh, euh, fédération bi démb Seydou Diouf moom mooy président fédération sénégalaise bu handball ñu déglu ko mu indi ci ay leeral. c'est vrai am na ñeenti équipe nationale yoo xam ne dañu war a compétir diggante le quinze ak le trente mars bu njëkk bi mooy euh, jigéen ñu mag ñi senior yi nga xam ne ñoom dañu war a jouer euh, tournoi qualificatif Jeux olympiques euh, fële ca Valence en Espagne ci Tokyo boobu ñaari équipe ñoo war a qualifier équipe bi incha allah dina dem Espagne gannaaw ëllëg le quinze pour def préparation ba pare enchaîner ak compétition bi Euh, ñaareeli compétition bi muy compétition bu am solo aussi toujours ci jigéen ñi mooy junior xale yi ñuy wax u ñoom dañu qualifié pour représenter Afrique ci chef Trophy mondial ñaari équipe bu xale yu ndaw yi góor yi ñoom itamit war a def IHF Trophy zonal euh, ci Bamako euh, muy U18 yu góor yi ak ak U20 yu góor yi ñoom ñu ngi war a defee sax seen stage à partir de tey Euh, ci Saint-Louis lañ ko yóbbu loolu lépp bu ñu ko waajalee aussi am moyen def ko c'est parce que démb rek maa ngi woon ak ministre des sports euh, ak ministre des euh, wax fa dëgg yàlla ñu leen di remercier bu baax parce que taxawaay bi rafet na ci comprendre que ñun tey fi ñu toll ci handball ñu ngi def ay accompagnement état bi vraiment dafa nekk accompagnement bu leer bu wër ci wàllu boo jël ci jël moo tax aussi ñu war leen a gërëm di leen sant ci ni ñu taxawee bay jàppale suñu équipe nationale yëpp. Maodo li ma fa jotoon wax ci xibaaru tàggat. jërëjëf El Hadj Malick kon lu dem ci.